jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen découverte tabaski euh, ni ñu ko baaxoo di def rek euh, saa su di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar yéen ñu ni seetaan ñu amaan mbégte dalal sunu beneen invité euh, kooku nag yaakaar naa su ngeen gisee image bi rek jarul sax ñuy dem ci présentation bi moom mooy kan ci fàttali ak turam moom mooy El Hadj Mamadou Morane Gueye Euh, nekk nag PDG group scolaire Fallou Galas euh, nekk secretaire départemental coordination partie socialiste bu Mbacké euh, di syndicaliste également jiite synthèse bu section Mbacké monsieur le directeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu Sénégal gépp leen dalal jàmm di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp li nga xam ne moom la ñuy génn nii di tabaski. di rafetlu vraiment li nga xam ni waa 28 pro def nañ ko di ñaan yàlla rek vraiment yàlla jàmm jàmm am ci réew di sant ñëpp di sant sumay waajur di sant sumay xarit sumay am di jàmm di rafetlu vraiment waxtaan bi. 28 mhm. pro ñu ngi am tamit mbégte di ko ci profitoiré ci par occasion di la jaale euh, sa xarit kenn ci yow. Euh, di euh, fa Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ni bokkoon ngeen euh, lu bëri yàggoon ngeen loolu ñu ngi la koy jaal bu baax a baax boo ñu doon waxaat tuuti ci kooku nga xam ni moom seqoon ngeen lu bari am an lan ci mën a taataane. di sant yàlla di ko ñaanal di jaale ay mbokkam di jaale Sénégal di jaale képp koo xam ne ki yaa ngi ci parce que suma xarit la woon suma responsable la wante itam maa moom dañ seqoon loo xam ne lii vraiment lu am solo la ci jullit ak moroom mu bette lool nag demam bi dëgg yàlla kenn foofu ko di homme d'état di homme vraiment un républicain di koo xam ne kii Sénégal ñàkk na ko ku jafee remplacer koo xam ne kii vraiment ku maandu la woon xam lu bari nag te kenn mësu koo xamal wax bu ñaaw muy nit koo xam ne ki ñun vraiment kontaan nañ ci li nga xam li doon na ko jëf moo tax suñu problème mooy remplacer ko jafe na wante Sénégal ñàkk na président Macky Sall ñàkk na militants yi ñàkk na euh, dañuy ñaan yàlla xare ko àjjana te vraiment li nga xam ne di moom mi ko doon liggéey Sénégal di ko liggéeyal parti bi yàlla sunu borom fay ko xam naa ni daal nit la woon koo xam ne ki daal man lu rëy vraiment dem na ku mag dem na euh, nit koo xam ne kii homme de culture la am patience am vraiment écoute bu mag ci militant ci Sénégal vraiment njabootam mu xamoon moo tax vraiment bi mu demee xam na ni Sénégal mhm. Mhm. bu baax mhm. mën nañu jàpp ni homme d'état la woon dëgg boo xam ne maanaam waxuma la sax euh, euh, au niveau national ba ci international ñu joxoon ko benn wekk ñu wekkoon ko daal moom. rawatina euh, réew yi nga xam ni moom la ñu moom la séqaloon parce que parti socialiste mën na ne partie bu yaatu la ci àdduna bi sax yëpp. mu bokkoon na koo xam ni ma daf ci daf ci yàgg jamonoy Senghor Abdou Diouf ba ni mu ci nekkee ni ba ni mu ciy jógee. waaw loolu dëgg la moom bi mu ci nekkee ku ne xam na ni dafa am ay échelons yu mu parce que boo xam kii nekkoon na vraiment secrétaire Senghor nekk conseiller diplomatique. nekkoon aussi vraiment lépp li nga xam ne lii moom amoon na ko muy responsable nekkoon bureau organisation et méthode xam parti ni muy doxe mm-hmm. jóge fa ci Senghor nekk Abdou Diouf Abdou Diouf mu jóge fi mu nekk représenté ko loolu wane na ni fi mu xam na lu bëri. Mm-hmm. Euh, nit la koo xam ne kii vraiment man xalaat naa ni ku mel ni moom. ñu ngi doon wax ay Bruno Diatta ñuy wax ay yenn kàngam yu nekk ci réew mi mais moom ku mel ni moom mu amut. Mm-hmm. te ragal naa ne dana jafe trop. Mm-hmm. parce que d' abord Ousmane dem bi bette na préparé wul lu bari mais xalaatoon na ni moom waru fa jóge léegi mais xalaat naa ni aussi ku am koo xam ne kii bàmmeelu biir la. Mm-hmm. lu muy def ak nit. lu muy wax ak nit yaa ngi moom ak yàlla rek international socialiste moo ko dirigé wul te loolu du mbir moo xam ne nii du oyof la mhm. adduna bi yëpp xalaat nañ ko boobu seen ñi ñëw jaalee ci ko rek ba léegi fi mu toll nii chef d'état yaa ngi ñëw organisation international yaa ngi ñëw loolu yëpp moom moo ko ji àdduna bi mhm. jiwoon ko président Macky Sall jël ko Sénégal yi ji ko parti socialiste mhm. moo tax fi mu nii ñàkk nañu wante yàlla may ñu keneen ku mel mhm. loolu solo la. Mhm. vraiment. Mhm. Euh, ci foofu noonu euh, ci dundu Tanor euh, xam naa ne loolu sax ëpp na ci ab émission parce que ku wax Ousmane Tanor Dieng xam fi mu jaar yëpp xam li mu servi tamit réew mi. yàggul dara euh, président de la république euh, delloo na ko njukkal tuddee ko benn sphère bu bees bi nga xam ne ni def na ko fële ca jam ñaajo lool nag mu nekk symbole boo xam ne ni duñ ko mus a fàtte comme ni mu ko defalee Sicap Abdou Diouf euh, dafa mel ne loolee dafa yàggal ñoom moom président de la république waaye dafa mel ne parti socialiste am na fu mu ko féetee. waaw mooy engagement bi mu defoon parti socialiste am na problème yu am yëpp. Mhm. ci ak dëggu Ousmane Tanor ànd naa ak nit wax moom lu leer ñun ak parti bi ñu ànd ak moom ci loolu mu dem ci ba ñu bëgg ko dindiloo c'est-à-dire waxam bi ñu waxoon li naan wax waxee. Mhm. loolu ñu ko bëggoon teg mu lànk ko. lu mu ko lànk itam ñun ànd nañ ci parce que d'abord mënoo ànd ak nit parce que réew mi ku ne xam na ni parti socialiste parti bu mag la bu demee ba ànd ak keneen koo xam ne ci dans une coalition daf koo waxoon ci au début. élection yi ku nekk xam na ni fi ñu toll nii bi ñu dem dañ ni képp ku jiitu danañ topp sa ginnaaw ñëpp ànd ci bu parti socialiste jiitoon tam ñëpp dañuy topp ci ginnaaw loolu xalaat nañ ko. Mhm. mais moom ba mu engagement ba jëloon moo ko indil problème yi yëpp. Mhm. te du problème sax parce que nit ki li muy def diisoo na ci ak euh, ñi nga xam ñooy militants yi xëñ na am nañu ci ànd mais moom bu dem ba ci biir di wax waxe loolu waxam kàddoom sàmmoon na ko. Mhm. sàmm ko ba nga xam ne nii. nit ñi defal ni loolu moo tax parti socialiste amul candidat mais réew mi ku nekk xam na ni léegi am réew kenn mënu ko yor benn parti rek mënu ko yor parti coalition ñoo koy yor léegi loolu demoon na ba fi mu toll nii tey jii mënut a dellu ginnaaw ba li ko dal dal ko ñii génn ñii tas parti bi ñii naan parti bi di lay def mais parti social bi parce que ab parti bu organiser la mm-hmm. du sommet à la base de la base au sommet loolu yëpp am na nañ comité comité coordination section yooyu yëpp am na ci te yooyu yëpp dafa am ay structure wóor tey jii boo ñëwee ci Mbàkke gi nga gis da gis parti bi kii moo yor lii kii moo lii kii moo yor lee boo demoon Diourbel boo dem feneen itam foo man dem Sénégal kii yor responsable parti social boo demee nag te loolu jafe na ci parti mhm. day parti bu organisé di renouveler di am ay structure sur le plan national le plan international mhm. kon loolu bu demee ban ànd ñu dem nekk ci ab benn coalition coalition ba fu mu toll nii li àndoon ak président de la république vraiment ku ne xam na ni fu mu toll nii mooy jàppale ko jàppale nañ ko ba am deuxième mandat je crois que loolu vraiment loolu mënu ko weesu. Hmm. yàlla dafa def ne rek fi mu toll nii bi muy def deuxième mandat bi vraiment yàlla jële ko fi mais parti bi na mu nekkoon man fa. Hmm. nit ñuy coow di wax parti parti social parti dañuy wax rek mais parti bi problème dana am ay structure danañ ko dox. li ki nga war a jiite parti bi dana ko jiite ñu aw ko suuf ba ca kaw ki nga xam ne kii moom la yàlla def mu nekk bi danañ ko jàppale ànd ak moom. est-ce que wax ni maanaam euh, avenir u parti bi euh, euh, comme ni nga ko xalaatee nii ni nga ko wala ni nga ko xalaatee ne am nga ci njort mu rafet ne dana dox structure bi dina dox comme ni mu doon doxee mais jamono ji danoo gisut ne maanaam parce que récemment am na ñun doon tudd naan kuy wuutu Ousmane Tanor Dieng mu indi ab coow loolee noonu ndax yaakaar nga dina réglé wu sous peu de dina réglé wu parce que xam nañ ko am na structure la parce que yeneen partie yi da gis ñu kenn bu fi jógee kan moo fi ne ku ne xam na ne fii doon nii am na premier adjoint deuxième ak troisième am na. Mhm. Aminata Mbengue Ndiaye moo fi nekk pour le moment mais moom mooy diriger partie bi ba congrès jot loolu ku ne xam na ko pour demee congrès nag su nga ko dee renouveler moo xam su fekkee renouveler bu set keneen mhm. loolu moo am ci partie socialiste. Mhm. ñi nga xam nekkuñ ci parti bi nag ñooy créer ay problème mais parti bi amul benn problème de structure amul pas de parti de vraiment de de de de remplacement. Mm-hmm. parce que te jii ku nekk xam na ni euh, jigéen mën na yor parti comme góor man na ko yore. Mm-hmm. mais xalaat naa ni li nga xam ni moo am ci parti socialiste euh, déroulement normal la. Mm-hmm. kii jóge na fii. keneen day ñëw ah mais est-ce que tamit jàpp nga ne comme ni nga ko waxee nii nee nga euh, am na ñoo xam ne nekkuñu ci parti bi ñoom ñooy indi ay coow ñu ngeen jàpp ne yéen nekkuñu ci parti bi est-ce que ñoom ñoom ñoo jàpp ne dëgg-dëgg ñoom ñoo yore parti bi. déet parti moom boo am baat parce bi da ngay am carte parti bi soit nga nekk dirigeant. Mhm. wala nga nekk ci ab commune wala nga nekk ci département wala nga nekk ci ab structure mais parti moom ku ca bokkul. ku ne mën nga wax lu nekk. ñiy wax nag man xalaat naa ni am na droit di wax bu fekkee ci parti bi lañ bokk te loolu ku nekk sa point de vue la parce que parti socialiste am na démocratie ku ëppalee majorité kooku que moom la di tànn mais ki nga xam ne kii fi mu toll nii moom bokkul ci parti mënut te bokk ci ay élection kooku je pense que fi mu toll nii ñun suñu biir euh, xam nañ ni muy doxee te parti bu mûr la. parti boo xam ne bii fi mu toll nii comme sosoo ba léegi fi mu toll nii je crois que ci ay yoon lañ ko teg am na démocratie xëy na peut loo gis am nañ ay brebis galeuses yoo xam ne fi mu toll nii ñoom ñooy tax dégg nga doxaluñ ci parti bi bokkuñ ci parti bi bëggañ ci wax. Mhm. mais ñooñu duñ leen considéré mais je pense que ñu bokk euh, parti socialiste am fi carte ñu war a dem ay renouvellement war a dem ay section war a dem ay comité central war a am bureau politique mais ñooñu ku nekk xam na leen je crois boobaa du am benn jaww. candidat à la candidature. bu mhm. bëgg a yor parti bi ci da bindu. Mhm. ci à la base. Mhm. ki nga xam ne moo nekk foog nga war na mën a diriger parti socialiste. mais day fekk ñu aw fu mu war a aw. da ngay am sa carte nekk ci coordination nekk union régionale nekk comité central bureau politique ba tam tey jii ñu tabb la nga nekk responsable parti. et retrouvailles yaakaar nga ni dina am au sein du parti mën naa wax suma ma waxee retrouvailles damay wax le cas de Khalifa Sall Aïssata Tall Sall euh, Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moom ngeen ne moom mooy première adjointe fi mu ne nii moom moo yore coordination bi et tamit loolu sous peu de temps ngeen war a dem ci ay renouvellement wala congrès retrouvailles dina am parce que ay Bamba Fall Diaz ñoom ñëpp ci parti bi lan bokk ba léegi. waaw am na Euh, kaaw Khalifa mi ngi ci prison dañuy ñaan yàlla mu génn parce que itam prison neexul kenn moom. Mhm. vraiment ñeneen ñi ay ay sata créé na ab structure ak ay mais je pense que pour ñu dellu si parti moom pour augmenter la wax. Mhm. plus moo gën moyen. mais kon ñaan nañu yàlla ñun ñëpp dellusiwaat. Mhm. mais dellusiwaat boobu aussi day fekk nga ñëw bokk ci parti bi mais munoo ñëw ci parti bi rek ni tey damay dellusi pour jël parti bi aussi. loolu nit ñi duñ ko accepté. Mhm. kooku je pense que loolu mooy indi ay tolof tolof moo tax fi mu toll nii bu ñëwee ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñooñu war a mën a duggaat ci parti bi vraiment nekkaat. mais ñoom génn mais ñoom génn ñu woon ci parti bi. si dañ leen génne. ah yéen leen génne. oui dañ leen génne woon. au temps de Tanor. oui au temps du en temps de Tanor au temps du parti socialiste. parti socialiste ñoo daje ni ñii liñ def nii. Mhm. génne na leen ci parti bi parce que dañoo violer la loi. ak mhm. y a un règlement intérieur. bu wane ñii nangam def na lii def na lii loolu nag bi ñu amee gënal leen ci parti bi. ñoom dañu bëgg ñëwaat fi mu ne nii. bu ñu bëggee ñëwaat dañ leen di tàllal vraiment ay loxo ñu ñëw parce que loolu tam mooy suñu avancement parti. socialiste yi ñoom rek. socialiste yi waa AFP yi ay socialiste la. Mhm. bon ñoom ay Malick Gakou tout ñooñu nga gis ñooñu demoon ñoo ñëpp ay Aïssata ñoom ñëpp beneen des c'est des socialistes. Mhm. am na lu leen métti woon mais nag war nañ mën a ñëwaat ci parti bi. Mhm. duggaat ci parti bi parce que le vrai ténor dernière réunion bureau politique bi nga xam bokk naa ci mais man xalaat na ni socialiste yi war nañ mën a daje. Hmm. xëy na yàlla dogalu ko mu fekke ko mais xalaat naa ni socialiste yi war nañ mën a dajoo nag parce que ñoom ñoo fi nekk. Hmm. li fi nekk li kenn xamul lan la ab jaxasoo la rek mais parti bu structuré comme parti socialiste amul fenn moom. Hmm. kon je pense que socialiste yi bu fekkee def na ànd ak le président Macky mu nekk ci dans une coalition waroon mën a ñu itam toog. vraiment seen i parti socialiste war na mën a dikkaat nag. Mhm. te ñu leen jàppale ñoom itam war nañu ko jàppale. ah parce que da ngay yaakaar ne ëllëg war ngeen parce que Macky deux mandats la wax te maanaam jàppale ngeen ko ci deux mandats yëpp beneen bii ñëw nag moom yéen la war a bàyyi ngeen yore. bien sûr mais mooy yoon parce que amul keneen leneen amu fi parti socialiste moo fi nekkoon dirige na réew mi pendant quarante ans xëy na am na ay erreurs yu def ñu génne ñu mais je crois que ñeneen ñi ñu remplacé. Mhm. defuñu fi loo xam ne lii lu tax ñun war nañ mën a bañ a bañ si delsi xam nañ suñu erreur parti socialiste ay vraiment ay hommes de culture lañ. Mhm. c' est des démocrates. Mhm. c' est des yoo xam itam très organisés. très organisé sur plan national ak international. Mhm. mais li ci 40 ans du du li ci 24 ans yoo xam ne mën naa wax ni diggante Wade ak euh, euh, Macky Sall. Mhm. parce que 40 ans yooyu moom moo ëpp 24 ans te def ngeen fi loo xam ne maanaam ñoom def nañ fi ñu mujj régime yu mujj yi li ñu fi def li ko réew mi gisee moom mooy que ni dañu ñoom xalaatu woon delluwaat ak parti socialiste. tout continuité la daal. continuité parti socialiste fi def. avec l'événement de Diouf ak événement Senghor. Mm-hmm. ku nekk xam na ni am na lu def. le monde rural ku nekk xam na ni na mu meloon ak léegi bokkut xëy na nag am réew day dox avancement technologie bi ak tout ce qu'il y a comme problème. Mm-hmm. ak ñi nga xam ni léegi fi mu toll nii réew mi am na ko mais amatul bu njëkk. mais je pense que fi mu toll nii na parti bi doon doxee itam vraiment bu mu toogee ba heure bi xëy na fi mu toll nii ak sur le plan méthodique. Mhm. parce que parti socialiste ñi fa gën ñëpp ñu bëri dana amoon or bureau organisation méthode. d'accord xam structure parti nan lay doxee. Mhm. xam itam réew mi lan la laaj ak faral ko mën a jëlee àll bi boo demee fi mu lan daan am ci ay juntukaay sur le plan de l'agriculture sur le plan ci ay ndimbali li daan jox. Mhm. autant bokkul ak léegi. ok mais xëy na réew day dox aussi. mais xalaat naa ne fi mu toll nii parti socialiste jox xam nañu lan la. Mhm. mais pour dikkaatoon fii toll nii danañ xam ni ñu doxalee réew mi. alors euh, découverte tabaski El Hadj Mamadou Morane la ñu dalal euh, ñu ñëw nag euh, fi nga xam ne moom moom mooy sa dëkk bi nga xam ne ni maanaam euh, xam nañ la ñu ngi fi yëngoo socialiste nga di yëngatu ci social waaye tamit di yëngatu ci wàllu éducation nekk tamit opérateur économique ñi ngi xam ne nag moom moom mooy am ci jo coowul ci dëkk bi moom mooy Morane. souvent dañ naan Morane day bootu ci gannaaw Massamba rek te dëkk bi maanaam war na koo mën a yor te parce que yàgg na koo laaj jamonoy fa Iba Guèye mu jóge fii ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko seral ay yaxam nga ñëw nekkaat ba léegi ci biir langue politique bi ngis na ne ba léegi beroogoo sa yoonu bopp pour jiite commune bi lu waral loolu. man kay maa beroo toujours sama yoonu bopp ah li may def mënuma koo weesu ci dëkk bi laa dëkk nekk ci ab parti. Hmm. nekk ci ab. opérateur économique. Mhm. Mhm. mais loolu mënu ma ko weesu. bu nit ñi nag kii tànn nag kii jiite. loolu beneen affaire la mooy la maire bi li nga bëgg a wax. mais man topp ma ci gannaaw kenn fi ñu toll nii dama la ku bëgg ku ma gisee nit koo xam ne kii ku mën a defar li may def mu ëpple ma. mën naa topp ci mais bu ma gisul koo xam ne kii fi ñu toll nii li may def nii mënuloo ko wala yokkuloo ma dara man damaa def ni mënu war a ma topp ci kenn. parce que tey jii euh, développement dëkk bi laa bëgg. développement dëkk bi sur le plan économique sur le plan des infrastructures maa ngi ci toujours. Mhm. maa ngi ci liggéey nag. mais nag dafa am foo xam ne bii boo nekkee parti yor ab euh, coalition nekk di opérateur économique war nga seet luy jëmale dëkk bi kanam mhm. bu ma xalaatee ni kii li may def moom mënu ko. Mhm. cest à man damay jéem a defal ko suma bopp loolu nag. mais est-ce que il n'est pas temps nga jéem a bàyyi nag nit ñi di defal sa bopp rek bañ a xalaat ne diw mi ngi def parce que yow. Mhm. am nañu bootu sa gannaaw tamit dañu soxla moraan ci bopp mairie bi. waaw saa ñu xaar keneen ki koo xam ne même donte leen kooku mi ngi def et que li muy def moom peut-être ya nga yàpp ne moo ëpp li ngay def yow mais ñoom tamit dañuy bañ ne maanaam yow rek lañ soxla. waaw loolu li nga wax dëgg la man defe naa ni dañuy wax maire mais man nekk naa maire bu yàgg que maire mooy kuy xalaat. di def ci dëkk bi lu ñuy def nga ànd ci lu ñuy liggéey nga bokk ci loo xalaat wax ko xañ na nag jiite xam nga jiite par force dafa amul maa leen man maa leen ëpp xam-xam damay jiite loolu man xaw ma ko gis nga am équipe ab maire dafay am une équipe am maire du nekk benn nit am maire ab ay ay nit du am xam-xam di xalaat maire dafay diriger rek mais su fekkee da ngaa nekk maire ba pare fi toll di wóor na ni amoo ñoo àndal. Mm-hmm. loolu mënut a nekk doo dem. maire dafay am équipe mooy doon nga jiite équipe bi. Mm-hmm. ku nekk di def di jël say initiative di indi looy am looy indi di am ay moyen di ko indi mais un conseil municipal moo baax am un dirigeant muy un maire. Mm-hmm. loolu mooy yoon. mais yow conseil nga. conseil naa bien sûr. mais la ma war a def ak li ma war a def doon ak li nga xam ne moom laa xalaat mais loolu amu fi. mais yow il paraît que doo doo assister conseil yu bëri. nu may assister conseil boo xam ne lu ñuy wax dañ koy préparé ñi ma àndal ñii. xalaatuma ah, ñu war a wax ci conseil dañ koy préparé ne bu ñu mais mais loolu moo fa am parce que d' abord conseil municipal da nga war a am sa xalaat am sa autonomie lii ànduma ci ak lii ànd naa ci mais su fekkee li ñuy def yëpp bala ñuy agsi lépp pare nañ ko ba ñëpp ànd nañ ci. mais kooku jërul sax ngay dem parce que loolu amut sens. sans ñu consulter ñu leen conseiller. non c'est-à-dire consultation parce que nee naa la conseil d'abord lan war a xam. waaw moom mooy lan un conseiller mooy lan. conseiller lan mooy liggéeyam war na am xalaat war nay nongu war nay bañ. Mhm. war nay jëf. Mhm. war nay participer mais loolu mooy conseil. mais conseil boo xam ne bi document bi ñu lay jox sax xamuloo ko. mënoo ko lire. voilà moom moo nekk ci suñu bi daal moom moo non suñu mairie man c'est-à-dire lu ci bëri moom bëgguma jox parce que fi mu toll nii man xalaat naa ni li ñuy def bokkut ak man suma projet de société li ma xalaat mooy luy jëmee dëkk bi kanam. Mm-hmm. ay infrastructure comme ay dëkk bi ay mm-hmm. assainissement. Mm-hmm. ay yokkute. ay nit ñuy liggéey nit ñi am ay dara mais ku nekk indi sa xalaat. def ko di jëli di indi di def loolu moi je pense que loolu mooy te loolu laay def mais gis na ne mais am na ñu bëri ñoo xam ne gisuñu la yow nga sol sa daal wala taal sa oto di dem seeti yenn secteur bi nga xam ne nii ñi ngi ñaxtu ci benn domaine bii nii parce que ñoom dañuy xaar nekk maanaam peut-être bu amee seen soxla ñëw fekk la sa bureau waxtaan ak yow euh, ngoo leen dee wax nga wax leen ngoo leen dee orienté mais comme nga dugg ci biir askan wi askanu goxu Mbàkke bi maanaam nga xam ne fii lii ngi jooytu lii nga taxaw leen ci ñoom danañu gisuñu ko askanu Mbàkke nag du ma jël nag sama di dem di dugg ci seen kii nii. ah ah maire ku bëgg doon maire loolu ngay def de. non non c'est-à-dire gis nga maire maire du force ab dëkk dañuy bëgg def nii changement ñu ànd ca buñ ca bëggut mais nga def li ngay def yow génn ci maire liggéeyal askan bi. doo nekk fii da ngay xaru liggéeyal askan day fekk askan bi bëgg loolu nit ñi dañuy bëgg avancement nga jàppal leen ci. mais quand taal suma oto di wër naa leen kaa leen kii nangam nangam ni mais loolu day fekk nit ñi bëgg ko am maire dañ koy tànn am maire population ba da koy bëgg da koy sabablu wante maay maire kaa leen fal maa ngi def nii nangam mais loolu boo ko def doo def dara dafa am yoon wun war a aw yoon woo xam ñu dañ ci war a dox waa dëkk bi dajaloo yow yaa ñu doy moo gën maa leen doy c'est important parce que tey ji mënoon nit ñi man la maa leen di jiite maa leen def lii non non man damaa bëgg nit ñi dajaloo ñu xalaat benn projet de société ñu tànn ay nit une équipe équipe ba tànn ñu ni kii moo ñu doy. yow itam nga nag nga jot man li may def moom du ma ko changé dama bëgg dëkk bi avancé dama bëgg jëm ci kanam may itam. Mm-hmm. loolu mooy suma priorité alors yow yaa ngi avancé vraiment ci côté éducation bi nga xam ni moom nga yëngu euh, mais souvent dañuy dégg ay accusations wala boog ay ñi lay waxal loo xam ni maanaam euh, parfois sa personnel sax dañ ci am jafe-jafe. dañ naan euh, Morane kat lim def tegu ko fenn tegu ko ci yoon jël le pàcc boo xam ne di làgg fu ko neex loolu dégg nañ ko sax. ci turu maanaam ki nga xam ne moom mooy yilif dëkk bi. loolu loo koy tontu ci ak looy tontu ñenn ñi nga xam ñi ngi wax. ci loo xam ne non ki moom du ma tontu moom parce que li ma xam. mooy man jëluma pàkk jaayuma pàkk kenn itam du ma jaaykat suuf man duma ma jaay suuf duma ma jël yëfi jàmbur li may yor dañ ma koy jox ci yoon ma am ko ci yoon am ko ci règlement yu leer pàkk yi ma yor lépp loo xam ay kayit yu leer la am loolu laay def man te defuma ko pour jaayaat damay def pour développement loolu laa am maire ba mu koy wax itam loolu moom la engage wante ba mu demee ba mu yàgg bëgg na loolu moom itam mooy parce que fa ma aw ma ngi fay bëgg a aw xëy na dafa sotteegul kon d'abord man li ma bëgg mooy lépp lu ma am ci yoon laa ko teg ci demande laa ko teg di ci fay ay tax di ci fay ay droits su may kii teg ak man kon fi mu toll nii loolu su ma yoon nekku ci affaire pàkk moom bu ci neel ma lépp lu ma mën def Sénégal am na réglementation am na yoon ci yoon woowu laay aw mm. parce que règlement xam naa ko syndicaliste la politicien la opérateur économique xam naa fi ni aw mm. kon nag fi ñu doon nii loolu moom beneen affaire la mm. loolu moom say ma ñu teg ko ci suuf alors indi na satisfaction ci sa benn euh, maanaam euh, mbir boo xam ne da ko bëggoon lool yàggul dara muy course hippique bi yow yaay jiite euh, CDG bi bu Mbàkke bi yàggul dara maire def na drapeau maire ànd ngeen ci liggéey noo jàngatee journée boobu noonu waaw ah, journée ba dana toogoon ni Mbàkke toog na dix ans dawalul course parce que d'abord développement bi dëkk ça dépend ci infrastructure yam am dama xalaat ni comité départemental la du population préfet mooy def arrêté nommé ma ni bëgg na lii war na mën a def lii ñuy toog na dix ans dawaloon course Mbàkke mhm. coow li bëri trop ci course bi ma jël pari ni dañuy dawal course xëy na peut-être que vraiment di ci félicité maire foofu ci engagement bu mu jël ànd ak ñun ci dawal course bi mais course bi moom mbàkkee ko moom te li ma wóor te wóor mooy ban dawalee itam ku nekk gis nga ci sa bopp tey jii sur le plan économique gis nga ab stade bu dëkk dafa am solo ci dëkk ab arène am na solo ci dëkk course hippique bii lim généré ci fonds c'est des millions en vingt-quatre heures ñii dawal Jakarta am nañ ci xaalis bu bari ñii jaay gerte am nañ ci xaalis ñii jaay ndox kafe lépp Mbàkke restaurant yi ñëpp dox. waaw ay gan ñoo fi ñëw parce que Mbàkke dafa am ginnaaw. ba Daara Jolof Daaru muus Musi ñëpp ñëw nañu seetaan ko. Sénégal nag ba commité national bi taxe ñu ngi doon xalaat sax coupe di chef de l' état prix chef de l' bi ñu dawal ko Mbàkke parce que course Mbàkke terrain bi mu am amul kenn ku ko am Sénégal. te président de la république da leen jox ay initiative woon leen da ngeen dawal fépp Sénégal. kon ñoom li ñu def noonu man ab pari la woon. ban ko dawalee itam ñu ngi naan fii la ñuy def course beek dañ koy jël ak dañ koy manqué man dama la dawal bi laa yàq xamoon. te xalaat nañ fi dawalaat yeneen course tout ça c' pour l' animation. sur le plan économique dafay am. loolu mooy am aussi ci stade yi. mais mais mais ci coow lu nee dañuy déplacer course bi loolu. waaw loolu maire non c' à dire foofu man dama ni terrain bi. lu ko gën amut. kon ñu bàyyi ko place am. man de moom ma gënaloon. waaw parce que dégg naa ñetti ñetti booy xool ñetti course yu am Sénégal yu baax. yu mhm. fonctionnel. muy Mbacké Thiès ak euh, Rufisque xaw maire bi nag daf ni dafa am feneen fu ñuy jox. feneen fan ci Mbacké. foofu loolu. parce que d'abord nee dafay def benn école de formation mais je pense que bu fekkee loolu am na te wóor na ma nii am na feneen foo xam ne mun war a dawal mais loolu amul problème ah, mais Mbacke amatul espace de. waaw kon nag déjà fii kon nañu bàyyil foofu rek. Mbacke moom nañu wax moom Mbacke amatul stade. Euh, man moom amatul espace boo xam ne maanaam danañ fa mën a def course. Mhm. yëpp dëkkee nañ ko. te lii ñor moom mooy que ni est-ce que maanaam combat bi nga xam ne maanaam jeunes yi ñu ngi koy def pour defaral la seen stade benn yi ah, yàlla ci ciy soutenir bala ñu ñëw ci éducation bi nga mais bien sûr bien sûr mais man ma dëkk ci dëkk bi di sportif mais stade moom man man entraîneur de football la yor ay équipe de football dégg nga kon luy defar ab stade man maa ciy jiitu loolu su ma mbëbët yàgg na fee ñu def course ba man projet bi ma amoon fi toll nii mën nañ fa def quatre terrains de sport football def fa terrain handball terrain basket def fa làmb mu nekk un terrain ou bien un stade omnisport te loolu lu am solo la mais kooku buñ ko amee mais am feneen am feneen parce que développement d'un pays d'un d'une localité ça dépend ci dëkk ba la ñuy am ci ay infrastructures xale yi fu ñuy fooyee fu ñuy jàngate fu ñuy tàngale yaram loolu dafa am solo ci ab dëkk loolu nag bu buñ ko amee am ci benn am ci ñaar am ñett mais je crois que loolu day développé dëkk bi rek. xale itam dafa am fu ñuy defee seen jumtukaay parce que loolu manqué na fi. yaa ngi ni fi toll espace amatu fi mais kon bu nu amee espace boobu nañ ko gën a fonk nañ ko gën a jàpp je crois lu am solo la. Euh, lan mooy secret Fallou Gallas euh, bi nga xam ne maanaam génn nañu ci examen mais chaque année. Euh, gis na ne yow yaa ngi def ay résultat yu baax par d passage ñu ngi koy félicité Euh, lan mooy secret bi. secret bi mooy vraiment xarañ professeur yu xarañ élèves yi discipliné nangoo jàng di am nekk dans de bonnes conditions di toog résultat am ñuy fekk boole ci Sénégal ñi jiitu secret bi nag weesu lu may jàngalekat yi. ñu nekk ñoo xam ne itam dañuy ñëw heure di wàcc heure ñu leen di toppatoo vraiment bu kekk euh, fête amee ñu wàññi fête yi di teel a ñëw di wàcc am ay surveillant am ay administrateur yu mën a toppatoo am ñoo xam ne ñi itam élèves yu nangoo jàngale discipliné di nekk loo xam lii vraiment am ay parents d'élèves yoo xam ni itam yu bëgg école bi la tey jii boo seetee école Fallou Garas ñi fiy jàngale ci soins secondaire bi xam nga ñu bëri dëkk ñu fi dañ leen di jëli ci yeneen dëkk gox goxaan yi parce que on choisit les meilleurs meilleurs bu leen choisir nag je pense que pour am résultat la résultat nag moo tax fi mu toll nii ñun ñu toog ci di jàng di jàngale di leen toppatoo aussi pour que ñuy dem di leen suivre parce que loolu lu am solo la tey jii njàng mi nii leen di jàngale defe naa ni quantum horaire bu ñu ko dee wax ci fàllu galas la ëpp parce que danañ dugg heure wàcc heure di di di di saafonte ak ñoom di leen toppatoo ba bis bu résultat amee itam ñu am résultat yoo xam ni fi mu toll nii yu baax la on parle également de la pression bi nga xam ne ñu ngi koy teg sur les élèves parfois ñu koy wax maanaam dañ leen teg pression parfois am na ñoo xam dañuy tiit pour bu ñëwee fàllu galas euh, leneen mën na leen fay fekk ci maanaam côté njàng mi lu koy waxee loolu est-ce que yaa ngi koy dund yaa ngi yëg ak les parents. parce que d' abord Fallou Galas bu fekkee da ngay école privée la mais ça ne veut pas dire que da ngay fay rek lu la neex nga def fa dafa am discipline pour dugg fa dafa am nooy duggee pour génn fa dafa am nooy génne kon du question peut-être que dana def du sociale aussi parce que pour jàppale élèves yi mën a jàng élèves yi nangoo jàng itam ñu te wóor nañ seen xel neexu tam ñu jàppale leen kon je pense que Fallou Galas bu fekkee élèves yaa ngi jóge dans les régions di ñëw di yow fàll glace dafa am lu tax lu fa am dafa metti nag parce que fokk ñu gétal leen njàng moom boo ci tollee da ngay jàng mais nag noo nekk di jàng ba pare def lu la neex parce que discipline boobu ak règlement intérieur bi am fàllu galas amul fen moo tax nag déjà pour nga dugg fa il faut ñu xam nan nga daan def ci bala nga ñëw foofu yan moyen nga daan am est-ce que su le plan disciplinaire mënal laa dugal ci école bi yooyu yëpp dañ koy toppatoo. Mhm. moo tax nag ñun fi ñu toll nii euh, du n'importe qui rek mooy ñëw fàllu galas. mais tamit ñu ngi naan ne yow xaritu waa IA nga xaritu waa IEF nga. xaritu ñëpp la ministère sax suma xarit la parce que d' abord ñooñu ñoo ñuy contrôler ñoo ñuy surveiller mais la ñuy def mooy war nga am résultat war nga am information war nga toog xalaat ni kii kat war nañoo mën a indil lii mhm. ñooñu ay collaborateurs la mais. amuñu dara loo xam ne nag war nañu ko mën a apporter te fekkuñ ci ñun. parce que école bi nga xam ne bii mooy jël premier ci département bi ci région bi. yaa day nekk sa xarit IEF day nekk sa xarit ministère aussi dañuy nekk sa xarit. loolu moom am na. alors euh, les projets yi nga xam ne am nga ko euh, dans l' avenir ak Fallou Gallas euh, parce que gis na ne euh, y' a des cadres yoo xam ne ñu ngi fii génn am na ay ressortissants yoo xam ne ñu ngi fii am nga tamit loo xam ne peut-être mën nga koo yokk ci wàllu éducation bi te mu soxla lool lool. bi ñu ngi koy yokk ñu ngi félicité ñi nga xam ñooy nekk ci fàllu galas génnoon fi bay ñëw parce que bari nan mais nag euh, damay xalaat ni ñoom itam am na lu leen war ak école bi moo tax ma ne la ñun suñ biir waroon mën a toog xool seet li nga xam ne lii mooy jëme école bi kanam projet yi mooy. élèves yi am bac dañuy am problème toujours dañuy am problème parce que bu buñ demee à l'université soit duñ dëkk Dakar wala Saint-Louis wala fenn mais xaat benn école boo xam ne bi université lay doon nanu ñi am bag dañuy toog ñu ngi koy def dans le cadre de la formation professionnelle je crois que ñu ngi ciy waxtaan ak ministre bi pour que ñu seet na leen créer aussi centre de formation professionnelle au sein de Fallou Galass ñu ngi def avec les séries G la comptabilité ak yooyu pour que élève yi parce que gis nga élèves yi résultat yi ñu am ci sur le plan de la série G vraiment macha allah am na résultats yu baax te bëgg nañ aussi yokk ko pour que école bi ñiy génn avec le bac ñu toog bañ a génn ci Mbàkke mhm. loolu projet la c'est en vue je crois que fii si leen programme ba pare li ci des ba lu tuuti moo ci des rek pour que ñu actualiser ko mhm. je pense que loolu lu am solo la pour que fàllu galas daal ñi fiy génne daal ñu toog ba yàlla may leen ñuy am métier wala ñu am di liggéey di dem ci dans la fonction publique am na ñuy tamit euh, parent yu jàpp tamit euh, euh, li nga xam ne moom moo lay dooleel tamit moom mooy cant gi xam ne yaa ngi koy cant ki nga xam ne kenn la ci yow te yàgg nga wax ne maanaam yi nga xam am ci moom am na njabootam sax ñu ko ci amul cant bi nga xam moom waaw cant bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant waa kër sëñ Fallou yëpp di sant sëñ Fallou mi nga xam ne mi moom la def année bu jot mhm. je pense que loolu am na solo danañ ko xoolaat sax cant bi pour gën a dollal ko. gën ko jëmmal waaye xam xaw yàq tuuti waaw mais mënul yàq dara parce que suñ fàllu ay mbiram dara ci yàqu. Mhm. suñ fàllu ay mbiram ca kanam rek. te yaakaar nañ ko te moom lañ am di ñaan yàlla yàlla yokk leeram. Mhm. tey jii waa kër suñ fàllu yëpp ku nekk fi ñu toll nii am nga sa doom daanaka ci école fàllu galas te loolu li ko am mooy discipline bu fa am ak njàng mi ak xarañ ba fa am te ak discipline ak li nga xam ni lu yiw la. école Fallou Galas ku nekk xam na ni nañuy solo na ñuy jànge ak ni ñuy dikkee ak ni leen di jàppale sur le plan vraiment pour que njàng mi gën a xarañ pour que ñoom itam ñu gën a am ay résultats kon je pense que fi mu toll nii loolu ñuy wax ñëpp cant bi moom dañuy ñaan yàlla vraiment di sant ñi nga xam ne ñoo paase ba dem ci yeneen école yu mag yi te yoroon nekkoon ci cant gi di sant itam ñi nga xam ne ñooy war a ñëw te école bi war a ubbi vraiment ñu cant leen ñoom itam commencé njàng mi parce que ñun suñu école daanaka du tëj fi ñu toll boo ko seetee tey jii daanaka suñu inscription yi commencé na tey jii fi ñu toll nii école bi commencé na inscrire ay élèves te élèves yi ñuy jël fi ñu toll nii léegi dootuñu nekk élèves n'importe comment am na nombre boo xam bu ñu ko jëlee fi ñu toll nii dootuñu mën a jël keneen kon fi ñu toll nii loolu yëpp dañ koy def pour que école Fallou Gallas commencé à partir de septembre bi vraiment cours yi commencé sax parce que loolu mooy njëriñ li aussi bien ci mm, préscolaire bi ci élémentaire bi ci moyen bi ak ci secondaire bi je crois que loolu itam ay ay mébét la yoo xam ni bokkuñoo ak école yi heure bu ñuy commencé duñ bokk ñoom itam heure bu ñuy arrêté. ñu jeexalee projet bi nga xam ne yëkkati woon nga fa par rapport ak transport élèves yi que souvent yow bokk nga ci ñu def benn sortie mm-hmm. di ko métti lu lool parce que yaa ngi dëkk ak ñoom projet boobu noonu fu mu tollu projet bi ñu ngi ci mooy am nañ ay car yu jëli élève yi léegi di leen indi ñuy jàng fàllu galas di leen delloo parce que boo ko seetee danger bi mooy. élèves yi bu nu wàccee ni ñuy lange ci oto yi ku nekk gis na ko te loolu day loo xam ne lii ñun suñu élèves dañ leen assuré kon assuré na leen nag mais ñi nga xam ne ñoo nekk fu sori dana leen defal ay kaar yoo xam ni dana leen jël si ñu jàng pour que di dugg à huit di wàcc ak quatorze heures pour que itam ñu bañ di tardé seen sécurité itam ñu garanti leen ko parents itam jàppale ñu ci wax dëgg yàlla am na bus yoo xam ni c'est en voie ñu ngi ci yoon bi je pense que bu ñëwee dana gën a jàppale nit ñi. jàppale parent yi nga xam ne ñoo nekk fu sori pour que seeni i doom yi nekk en sécurité ñëw di jàng di delloo. jàppale tamit ñeneen ñi nekk ci école publique bi. waaye école publique bi tam dañ ci jàngal bien sûr parce que fi toll nii. parce que transport au niveau. yaatu na mais je pense que bu amee itam ñu ñu mën a jàppale. damay lancer défi boobu pour que ñu ñëw ànd ak ñun parce que kenn rek mënul lépp nañ ñëw jàppale ñu ci transport bi pour que Mbàkke ñi nga xam ni ñoo am problème transport loolu jeex fi te am na moyens yi. am nañ kattan bi am na xariñ bi am nañ yéene bi ñun nag fi mu toll nii dañuy lancé défi boobu te ren daal fi mu toll xalaat na ni tey jii ku nekk public ku nekk privé tey jii da nga ñëw jàng si te doo am benn problème de transport. bala may dem ci 28 pro euh, euh, co euh, mi ngi waaj ñëw élection comme ni ma ko laajee ñeneen moo daan candidat nga. ah candidat kay candidat kay man. candidat ci sa propre bannière boo topp kenn. déet déet li max la xam nga candidat moom. Ah, dafa yomb candidat dañ lay tànn. de tànn dañ koy tànn man yaakaar naa ni man lañuy tànn pour nekk candidat aussi bien ci coalition yi aussi bien ci suma parti aussi bien ci suma mouvement. bu la coalition tànnul. ah mais kooku man lu jiitee fi mu nii dëkk bi projet yi bi fi am. boobaa danaa xam nu may def boobaa danaa leen ko wax. 28 pro ñu ngi am mbégte di la dalal loolu gisee seen liggéey. seen liggéey di rafetlu naa ko parce que vraiment xam naa ni. xam naa ni comme pro ngeen professionnel ngeen parce que li tax ñu indi 28 pro bi xam naa ni. xam naa ni ko taal waaw bi xam nga tamit fa lañ ko tibbee. waaw waaw man vraiment di leen remercier daal di ñaan seen liggéey vraiment dem ca kanam te ngeen yàlla jox leen ay kàttan ay moyens yu ngeen mën a demal parce que xam naa ni seenu yar ak seenu vraiment professionnalisme gis naa ko te loolu moo am solo. te fi ñu toll nii ki kuy wax rek ci dëkk bi vraiment bu leen gisee day sawar parce que d'abord yéen a ngi koy def normalement damay ñaan seen jumtukaay yokk ngeen am matériel bu gën a doy mbàkke jëm ci kanam parce que information yi buñ ko amul fi ñu toll nii duñ mën a dem te yéen da ngeen di difficulté divulguer information yi di ñaan nag ñi ko dégg aussi am ci ay xarañ jàppale leen yéen itam nag te xam ni yéen a ngi def seen liggéey normalement. jërëjëf découverte tabaski la woon eh, El Hadj Mamadou Morane Gueye PDG eh, groupe scolaire Fallou Galass syndicaliste njëkk dem secrétaire général coordination parti socialiste bu Mbacké moom la ñu dalaloon ci seen émission découverte tabaski àndoon ak 28 pro eh, maa ngi ak Bekay Ndiaye Talla Samb Serigne Mbacké Fall ñu ngi am mbégte bu baax a baax si di jaxate ci présentation bi di leen dig jaajëf ci yeneen jotaay.